dal leen ak jàmm mbokk internet yi gorob Youssou Ndour bi Dame Amar dugg na Nouveau Sène Youssou Ndour daal di jëlaat doomam delloo ko ca këram waaw waaw roi du mbalax Youssou Ndour dafa mer ba futtu te lu ko waral du lenn lu dul jëf ak doxalin bu ñaaw bi nga xamante ne moom la gorom bii di Dame Amar nekk jëkkër ci doomam ju jigéen ji di Ndeye Soxna Ndour amal ba mu jural ko kaso lu ci mel ni jëfandoo gu muy jëfandikoo dorog sinébar ak sax lu ci mel ni xeetub ndajoo ak pëccoxoo yi nga xamante ne jot na ko amal coow lu rëy ci faatu Hiba Thiam mi nga xamante ne ñàkk na bakkanam ànd ak loolu yeneen jëf yu mu dëkkee woon te kenn sopp ko mu mel ni li ko Youssou Ndour guuxaloon lépp tey ji wàccu na ko jëfi Dame Amady yi ci kaw Youssou Ndour dama ne bu fekkoon ab yéeg la dama naan leen laal na nag plafond ba waaw waaw ma ngi ca ajag-jag ja sës na rëkk mu mel ni ki kilée di Dame Amar daf doon tayle bakkanam teg ci nag di foowee doomu Youssou Ndour bu jigéen bi lee di Ndeye Soxna Ndour waaye nag lu waay rendi sa lay naaj Dame Amar laalee bànneexu ak a jàpp sa compétence mel na ni rek loolu yépp tey dakk na ndax moom daam amaar bi ci bi doon naaw jëm fu ko neex tey jii nii tag na ci ab tàgg goo xamante ni laata mu fay jógee dina wax lu set wecc maa nga nduga siin takk der yi làq nañ ko jant wi xanaa rek ñu rafet njort ci ne tëj gi ñu ko tëj dina ko may mu delloo si xelam réccu ay jaar-jaaram te defaraat jikkoom ba su fa jógee bañ a dellooti ci ñi nga xamante ne ni moom moo ko fa yóbbu woon ci ñu yóbbu kër baayam nag mooy ndey soxna Ndour Youssou Ndour ci sàmm njabootam fas yéene aar doomam te ragg derub nday soxna nduur mi nga xamante ne bët jàpp na ni jëfi borom këram ja di daam amaar daf ko tilimal ànd ak la ko dugal kaso ci lu wér Youssou Ndour taxaw na ci am ak aar doomam ak i sëtam loolu waral mu waaxul boppam ñaatam ñaatam ba ca kër dam amaar ne coppet doomam ja nday soxna nduur yoot ko ci daamaram ne fes dellu këram te nag gis nga yu moom boole wu ci wax ju bari waaw dafa dem calmement armement wax amul coow jibur waaw waaw donte am na télé rajo ak i journal yu ko waroon a mën a may mu fësal kàddoom waxe bopp wane boppam ci mbir mi defu ko te dafa préféré amal yépp ci lu kenn yëgul bu ñu sukkandikoo ci jegeñaaleem bi ñu jox xibaar gi Youssou Ndour dafa bëgg a protéger doomam ju jigéen ji la ne nag ni lii am am na ba pare waaye Youssou Ndour du mas du màppandoo te doomam ju jigéen ji tamit kenn du ko fontoo waaw muy fulla nag ndax bukki bu yabee gaynde ca doxin wala yu mel ni ku naan maa la mayoon sama doom toppatoo woo ko jëlaat hum mm-hmm. gis nga nag fu lay jaay Dakar bi de leçon moom mokk na rumbax waaw kay bu leen fàtte nag ni corona ji jeexagul raxas leen seeni loxo te toog seen kër jërë ngeen jëf